ça a été abrogé ça veut dire annulé mhm. il faut dire les choses telles qu'elles sont le président de la République a annulé l'élection présidentielle de 2024 à date issue du 25 février mhm. maintenant le Sénégalais lambda et le Sénégalais politicien ñoo ci bokk yem parce que à la fin de la journée kii dafay laaj kii dafay joxe mhm. c'est tout c'est le rendez-vous d'un citoyen avec son peuple mm -hmm. donc aujourd'hui dafa nekk leen loo xamante ne Sénégalais yëpp dañ ko war a def bopp ñu génn maintenant pour répondre à ta question est-ce que dina am lu muy njeexantal bu muy def si décision président Macky kooku le temps nous en est différent mais man je dis que toute forme ou toute sorte de manifestation boo xamante ne jàmm la c'est une manière de s'indigner par rapport à cet acte mmh. et par rapport à cette décision pour dire que on n'est pas d'accord boo toogoon sa kër sax yor sa pot di dóor di pour juste wane sa naqar c'est une façon de dire que je ne suis pas d'accord donc forme bu mu ci mën a nekk si dina am benn répercussion dina am benn njeexantal à quelle échelle c'est ça la question à quelle échelle est-ce que la personne avec qui nous parlons il l'écoute mmh. ou bien il ferme les yeux et il fonce et je te promets s'il fonce il va se casser les dents et je j'en suis sûr qu'il se cassera les dents s'il fonce incha allah. d'accord mais ouais. est-ce que est-ce que dina am la la manifestation. autorisation bi commencé barricader Dakar autorisation bi génnagul gisaguñu fenn foo xam ne si ni tey. waaw c'est ça parce que si campagne lañ ne. si campagne waaw est-ce que loolu aussi le problème ah. même bu ñu nekk woon si campagne. moi je dis am na foo xam ne bu ñu fa tollee. Mm-hmm. et puis il faut que nit ñi ñu leeral. Mm-hmm. et puis loolu yéen seen rôle la journaliste yi. Mm-hmm. ngeen leeral ñi nga xamante ne peut-être. ils n'ont pas accès à la bonne information. Si. Comme quoi que un citoyen, tu n'as pas le droit de demander une autorisation. L'autorisation, déclaration, mmh. ouais. c'est une déclaration que tu fais. Parce que c'est ton droit, c'est un droit qui a été donné. dafa mel ni par exemple aux États-Unis like freedom speech you nekk loo xamante ne doo ko laaj. tu ne demandes pas mosoo gis kenn muy dem di ko laaj mmh. un droit boo xam ne am nga ci moom di président euh, de la République ni mu amee droit. yoo xam ne ñun ñoo ko ko jox la population mais ñun tamit la population noonu la ñu amee droit yoo xamante ne on a pas besoin de lui demander on lui impose parce que il faut savoir que le président de la République il travaille pour sa population mm -hmm. nous ne travaillons pas pour lui non il a demandé de par son programme la la magistrature suprême du Sénégal pour diriger le pays maintenant dafa am loo xamante ne suñu prérogative la ñun en tant que citoyen et nous ne demandons pas que le ou pas il verra les Sénégalais dehors s'il si peut enfermer tous les dix-huit millions de Sénégalais en prison bismillah bismillah mais gis nañu ñu jàppoon ba passé après dañ leen bàyyi waat ah gars yi mm-hmm. parce qu'ils savent très bien que Sénégalais yi dañu nekk ci seen yoon et puis on est en pleine campagne on est en pleine campagne. là il peut pas Macky annulé na campagne. mais ok pur lan la ñuy def. ñu ngi campagne ñu ngi caravane ah, ñu ngi def seen ah. ñu ngi. campagne ça veut dire que les Sénégalais n'écoutent pas ñoom li non on ne les écoute plus du moins. mais sooy def campagne te xam ne da ngay dem te campagne ba ba le 25 février aussi te euh, vote amul mais vote dina non vote bu février. le février ou pas am ah. nga am nga yaakaar conseil. le février ou pas. man je ne suis pas dans cette juridiction donc je prends la prudence de ne pas. Euh, essayer d'être César là où je ne suis pas César. Mm -hmm. c'est-à-dire loolu dafa ñoo xam dañoo am amabilité wu def loolu. man li ma xam en tant que citoyen mooy lii ñoo ko moom suñu droit la. élection dafa war a am par force nekk lu ñuy négocier man mm. personnellement je ne suis pas de cette classe ñi naa nañu négocier nañu ñaan yeeg amul lu ñu lay ñaan da ngaa fégal tu as fait douze ans en magistrature suprême ñu jox la lépp le Sénégal tu t'as tout donné Macky Sall Sénégal amul lu mu bàyyil Macky Sall dara Macky Sall a fait vingt ans de règne en pouvoir huit ans avec Abdoulaye Wade douze ans en tant que magistrature suprême président de la République du Sénégal doy na nguur kenn ko ñedd amul leneen lu président Macky Sall mën a amaat fii lu mu amul woon ba pare six mois dix mois yi ngay yokk c'est pas important les Sénégalais ñoo la joxoon doyal nañu delloo leen parce que bu ñu ko delloo dañ ko jël parce que le pouvoir c'est pas une personne oui tu contrôles la gendarmerie oui tu contrôles la police mais n'oubliez pas que cette police et cette gendarmerie font partie du Sénégal ce des Sénégalais et parfois il y a des ordres yoo xam bu ñu leen ko joxee c'est pas des ordres à exécuter il faut dire non parce que c'est pour la stabilité et la paix sociale de ce pays-là il faut choisir des combats le combat entre la police et la gendarmerie contre la les citoyens c'est pas un combat à la limite c'est parce que ñun ñoo bokk benn gaal. Mm. mais benn nit wala benn bu nit ñu toog ci seen i bureau toog ci seen ay climatiseur am seen lépp di décider au nom de tout le monde si loo xamante c'est illégal c'est pas normal. mais d'où. Mm-hmm. vas amul benn sénégalais bu war a tiit wala ragal génn génn leen génn leen ngeen dem manifester mais ngeen manifester paisiblement. ngeen manifester si jàmm ngeen indi ñëw si jàmm ngeen wax li leen naqari am ngeen si droit. Mhm. amul loo leen di laaj pacifiquement am mais mhm. bien sûr non mais jàmm ginnaaw ay jàmm jàmm moo gën loo gis. Mhm. parce que même li ñuy kaas. bu amul jàmm duñ ko mën a. duñ ko mën a exécuter. parce que il faut nga defar jàmm bi ba pare. effectivement nga doog a toogaat ne léegi waaw ok léegi mooy say lan mooy say lan mooy say euh, say demande. wala lan mooy say euh, I don't know how to say that. Um, nan lañ koy waxee sax lan mooy say merci parce que tey jii si jàmm la lépp xaj même lekk ba suur dafa fekk da nga nekk si jàmm mm-hmm. nelaw ba yandoo dafa nekk nga nekk si jàmm mm-hmm. donc tey jii man si jàmm laa wax nit ñi nañu génn mm-hmm. on a besoin de cette population ñu yeewu ñu kaas ñu ne saway président Macky Sall li nga def ànduñu si d'accord ñu si indil suñu élection ñu def ko à date issue parce que yow yaa ne le cinq convoquer le corps électoral pour le 25 on n'a qu'à respecter ça. ok xoolee si dialogue bi aussi. ñii doon nañ ko évoqué ah. waaw dama bëggoon nga ñëw ci. Euh, ñëw ci mobilisation ba pare. Mhm. après ñu dem ci ñem ci dialogue bi. bismillah parce que yow tamit ci waxtaan bi nga bokk. waaw <laughs> da léeg-léeg ay question mais da ngay analyser ah. voilà sa gis-gis ci euh, maanaam euh, solos mobilisation bi ñu amal tey jile opposition war ko def contre le report de l' élection présidentielle. waaw xam nga. yàgg nañ ko fi def moom mais. Hmm, hmm, yàgg def yàgg nañ ko fi boo boo amee seetlu sax Mahfouz da nga gis ne niñ daan arrêté fan yële ñu génn. ak niñ daan arrêté daanaka bokkatul ak léegi. Hmm. man gis naa ay post yoo xam ne ci Facebook il y a mois 7 mois ci ginnaaw boo ko mosaan def heure jàpp nañ la. donc da ngay gis ne kon am na foo xam ne toll nañ fa foo xamante ne fi ñu toll nii. maanaam amatul euh, la coupe est déjà pleine quoi. voilà non no situation moo moo moo ni mel. situation moo ni tey jii buntu kër boo romb am na ñu mer ñoo xamante ne xamantuñ sax lu ñuy lekk ay xamantuñ lu ñu naan ndax ndax ndax frustration bu sori. Uh-huh. mais kooku da nga see mën a dolli boole kap di jàpp askan yëpp mënul nekk. tey jii ñu jàpp sax da ngay gis ne bu ñu defee quarante huit heures wala bu ñu defee quelques jours wala benn jour euh, ci commissariat bi ñu bàyyi la ñu et pourtant uh-huh. loolu moo nekkoon yoon. Uh-huh. manifestation kuñ ci masaanaa jàpp bu ñu la jàppee ba noppi euh, comme interdiction manifestation Aliou Sane li mu nekkee nii. si c'était du temps de Wade bu ñu la jàppee boo demee commissariat. duñ la présenté sax procureur. Mhm. da ngay fanaan sa ëllëg sa guddi gi ñu bàyyi la nga ñibbi. Mhm. mais liñ nekk di gis ni fii mos ñu koo gis. Mhm. donc xam nga yooyu yëpp nit ñi ko constaté. daan ko gis daan am lu leen metti ñu ne le 25 février ñu dem faji ji ko le 25 février ñu leen amatul. léegi ñooñu am lu leen metti yëpp tey ji buñ toogee jàpp seen ñàmbur. ça veut dire que mooy coup de force bi nga xam ne gaañ bi dóor na ko ñu nangu nañ ko loolu lay wane. Mm. bu ne war nañ manifestation après ñoom ngeen gis ñu génn taxaw seen télé ne gis ngeen manifestation la woon ñett ñaar ñoo génn gaz nañ leen dem nañu bon sax dañ bon am na. Mm-hmm. parce que euh, def na ko ñett génn ñaar génn nañ gaz nañ leen léegi wax ji jeex naa mën nañ yeggale mais attention nous sommes un peuple imprévisible. Mm-hmm. peuple lañ boo xamante ne kenn mënu koo takk. Mm-hmm. amoon na fi ay moment ñëpp jàpp ne lii mooy taal dëkk bi loolu taalu ko ñëpp jàpp ne lii bu bu amee dëkk bi yëngatu am na dëkk bi yëngatu fanka dul foogee foofu lay jóge donc peuple la boo xam ne kenn mënu koo maîtriser yow fii nit ñi lu ñu doon wax Sénégal xamul fitna. Hmm. Sénégalais dafa ragal ay. Sénégal dafa def nii mais fii lañ fi gis ay sénégalais yoo xamante ni dugg fii di taal taal taal ab góor jigéen génne ko suul ko mais mais barbarie boobu noonu tey ji mais. c'est vrai fee yeeg yooyu bokkul mais wa wane ne état d'esprit ni sénégalais la nit la boo xamante ne tey ji mën na nekk nit ku baax a baax a baax a baax waaye mën na ne nit ku violent koo xamante ne mënoo koo natt mhm. comme tey ji peuple la boo xamante ne man je me dis amul kenn ku mën a taxaw mu def ne nii laa koy définir nii la mel mhm. période bi su ma ko jàngatee du génn période bi su ma ko jàngatee dina génn donc amul kenn ku ko mën a canaliser amul kenn ku ko mën a tënk ça dépend ni mu évoluer ça mhm. dépend ci yi mu jàkkaarloon est-ce que waroo am prudence par rapport ak say euh, ak ni ngay doxalee prudence cent pour cent nga war am parce que lii ñu dugg nii tey ji xam nga bu njëkk ba dañ daan wax euh, ñoom ñoo respecté Ousmane Sonko moo respecté institution yi. Mhm. wala opposants yi ñoo deful nii wala ñii ñoo bañ a def nii mais bi problème bi li li si ridicule mooy boo ko dàqee mu dem ci ñoom nga retourné ko mu delluwaat ci ñoom. boomerang. non boomerang la. lépp lépp ci ñoom la maanaam lépp ci ñoom la ñoom ñoo dàqee élection yi. ñoom ñoo bëgg jàppaat datu élection ñoom ñoo woote dialogue mm-hmm. mais dans ce cas on n'est plus dans une république parce que su fekkee ne lépp lépp république lan la pouvoir appartient au peuple mm-hmm. mais peuple amatuñ pouvoir léegi léegi pouvoir benn benn nit moo ko téye maanaam da ngeen ñëw waxtaan ñu négocier na ngeen di bokkee jàpp naa sama bis bi nga xamante ne sama nit jàppal nañ ma ko mooy bis bi ngeen demaat élection toog naa ma xëy dàq naa ne élection bi gis naa ne ah, mbir mi nu mu demee neexuma lépp bu reposé wu si benn nit nekkatuñ dans nañ ko tuddee neneen mais nekkatul démocratie parce que peuple bi moo daan tànn moo daan wax lii laa bëgg mu am jaarale ko fu mu jaarale ñu amal ko mais peuple su demee de ba tànnatul bés ba mu amoon pour tànn sax xam nga damay indi benn misaal bu ndaw tey ji boo yore sa kaasu café di ko naan mu ñëw fël café gi mais yow laa amal problème su la neexee nga baal ma mais su ma duggee seen kër fekk ngeen teg boolu ceeb bi ma ñëw jël boolu ceeb këpp ko aw maa ak yow problème waa kër ga laa amal problème Macky Sall noonu la def amul ak problème homme yi amul rek problème waa société civile mais sénégalais la amoon problème parce que bés la boo hmm. xamante ne moo xam ngay menuisier journaliste technicien médecin yéen ñëpp bis boobu ñëpp ci yem. Mm-hmm. carte bi amul góor amul jigéen da ngay dem jël dugal ci urne bi. waaw léegi bis boobu kenn kenn waaw léegi bis boobu mu toog ba mu ne ko mu ne dàq naa ko parce que carte gi leerul. Mm-hmm. mais kooku ñëpp la tooñ. donc tooñul kenn kese mais askan la tooñ loolu moo tax il faut askan jóg taxaw ñëpp ne ko d' accord ci tooñ nga ñu dinañ la wan ne tooñ nga ñu. Mm-hmm. d' accord que euh, sénégalais yi dinañu ko xamee noonu euh, ngoon ñu daal di génn dem fële ca place de la nation seen euh, naqar par mhm. rapport ak li nga xamante ni Macky Sall daal dina koy euh, def jëmee ko ci élection bi waroon am le euh, le 25 février 2024 ñu ñëw ci dialogue bi ah. Khoureychi Khoureychi bi dialogue bi Macky Sall annoncé na ko am na ñu ci d' accord am na ñoo xam ne si ni d' accorduñ ci. yéen na ngeen jàkket jànkete tey ban c'est-à-dire nu ngeen gisee dialogue bi ndax ànd ngeen ci walla ànduleen ci bon xam nga dialogue moom dafa nekk leen loo xamante ne euh, dafa yàgg si àdduna. Mhm. ñu ngi dialogué. Mhm. en train de dialoguer mais euh, dafa am luy constituer dialogue ay nit du benn moo ko def. Mhm. ay nit ñoo ko def walla ñaar il faut mu nekk ñaar wala plusieurs. te dialogue boo gis dafa am ay euh, ay base c'est-à-dire am na loo xamante ne moom mu war a nekk base du dialogue et pourquoi aussi ngay dialoguer. il faut que nit ñi xam lan moo tax la dialogue. Mhm. aujourd'hui moi je dis que je ne vois pas la pertinence d'un dialogue après nga def yëfu maa tey ba pare quoi non soo dialogué da ngay dialogué si loo xamante ne dalee leen da nga naan ok lii laa xalaat. Mhm. xëy na dina am ñoo xam duñ ko xalaat mais su ma ko defee mën na am ay njeexantal yoo xam ne wala ay répercussions yoo xamante ne peut-être ça négatif ou bien ça même positif qui va tourner sur le négatif. Mhm. j'en j'en parle ak les yi nga xam ne ñoom ñoo concerné mooy lan les sénégalais. Si. mais ci pàcc bi nga nekk ci wàll bi nga nekk muy politique da ngay xool say nawle politique yi nga xamante ne ñoom nga nekkal. Mhm. vous en par vous en discutez. parce que dafa nekk leen loo xamante ne réew nga wax waxoo koñ même bu nekkoon koñ sax kër sax da nga koy waxtaane parce que yow sa soxna da ngeen di ngeen waxtaan. Mhm. parce que am na yoo xam ne mënoo ko imposer si biir kër gi. donc tey jii imagine su fekkee da ngay waxtaanee li nga xamante ne mooy kër. masamak li nga xamante ne mooy réew. dialogue kenn bañu ko kenn bañul dialogue ci àddina bi xeex fu mu mën a am sax dialogue di am yonent bi sallallahu alayhi amoon na benn période boo xam ne dafa dialogue mm. ak yahud yi dafa dialogue ak ñoom. Mm. ñu def pacte mu ne ok léegi damay da ngay dem du ma dugg doo dugg damay dugg doo dugg fan la mujjee mu ne ok léegi pendant une durée telle du ma dugg ku ñu jàpp ci yéen da ñu koy delloo. waaye ñun ku ñu jàpp si yéen dañ koy garder mu d' accord mais lan la jur après la victoire. Mm-hmm. parce que bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw di jub si màkk dafa am ñu jugee biir màkk di génn am ñu jugee màkk en dehors de màkk tamit di génn. Mm-hmm. et ils se sont rendu compte que ni vraiment doole yematul. Mm-hmm. dialogue baax na. je dis pas que c'est pas c'est mauvais mais kañ ngay dialogue lan ngay dialoguer ak fan ngay dialoguer. ak ñooy dialoguer dafa am solo. est-ce que ce dialogue est sincère je ne sais pas. parce que kii dialogué rek moo la mën a wax lan moo nekk ci biir xelam. Hmm. mais ñun ñi nga xamante ne la bëgg dialogué mooy ñun askan bi est-ce que am nañu prérogative yi ñuy permettre yëpp pour ñu mën a am confiance ci dialogue am d'autant plus que yow ci sa bopp en tant que l'initiateur de ce dialogue yaa yàgg wax ni bàyyi naa njuuj njaaj mais c'est grave hmm. pour un président de la République. C'est extrêmement grave. D'où j'appelle ak confiance. lu tax ma wax foofu lu tax ma tibb foofu rek mooy confiance. su fekkee dama yàgg di wax ak yow. ma xëy suba ma ne la non li ma doon wax dama doon nax mais non tey dinaa wax dëgg yow en âme et conscience sa biir xel loo ma déglu déglu déglu déglu sa benn pàcc bi mi ngi naan est-ce naxuma. Mm-hmm. n'est-ce ok donc d'où je ne vois pas la pertinence aujourd'hui de après nga def yow li la neex laajoo kenn nga seet yow ñi nga xamante ne ñoo la doy ñu diggal la lii nga xamante ne mooy forfaiture bi nga def ba pare nga ne léegi damay imposer parce que à la limite dialogue boo déggee dafa mel dafay weñ loxo gars yi ne damay dialoguer par force. Mm. damay def lii maa tey léegi da ngeen di ñëw ñu toog ñu waxtaan. non non non mais am nañu si gis Khoureychi euh, comme benn buntu boo xam ne mun nañ ci libérer détenu politique yi. écoutez gis nga merci. ñoom tey la ñuy doog a gëm ni am nañ détenu politique mais i mais c'est quelle farce mais ñun fan la ñu nekk on ne dans quelle république depuis combien de mois on est en train de crier partout niveau national comme niveau international que dañu am ay détenus politiques ñu ne détenu politique amul ñu ne détenu politique amul Sénégal et puis ñu am ay non non mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire ñu am ay ñoo xamante ne ñi ñoo suñu ay ministres gis nga war mawu ministre jamono yu njëkk yi c'est pas pour faire de la publicité mm-hmm. mais honnêtement ci jamono Abdou Diouf foo nga doon gisee élégance su homme d'état man jamono boobu laa fekkee